on ñëwoon tey euh, waxtaan ak le ministre de l'enseignement supérieur euh, pour béral ko sunu mbégte ak euh, reconnaissance ci li nga xamante ni maanaam jang fofu, jàng foofu dinañ ko am ci wàllu bourse bo xamanteni ministère mo leen koy mo leen ko jagleel bo ba légui am ay at ci ginnaw loolu nak dafa nek lu am solo pour ñom ngir ñu mëna jang ak xel mu dal mëna am condition yu bax yi nga xamanteni manam dinañ mën a tax lu ñuy xaar ci ñoom ci wàllu résultat ñu mën ko am euh, loolu nag la euh, association bi doon ñëw tey di ko béral euh, monsieur le ministre rax ci dolli ndongo yi nga xamante ne dem foofu dañ fa dem pour jàng naam pour seen bopp waaye itim danu teewal Sénégal dañu teewal peuple bi yëpp ñu doon doon ñaax ñu wax ni maanaam bu ñu eggee foofu ñu yor jikko yoo xamante ni dina tax ñu gën a ràññale Euh, euh, Sénégal fofu ci Égypte nga xamanteni ni mooy xam-xam la. waaw ndax xam nga euh, depuis 2011 Égypte dafa jàmmonte woon jànkonte woon ak ay jafé jafé ci walu politique loolu nak dafa am jeexital ci walu économie bi bu ko défé conditions yi ñu fay jàngee yan fay nekkee dafa xaw jafé légui motax euh dund gi xaw na jafé na ba taxna na li leen di ministère de l'enseignement supérieur di leen yónnee ci walu ay bourse da di jàppale bu baax a baax ci seen nekkin foofu loolu moo tax nag ñëwoon fii di ko bëral ministre bi di ko wax ni daal wax dëgg yàlla acte boobu lu am solo la dañ ci gën a ñaax pour ñu gën di ko mën a def ndax étudiants yi fay nekk di ay doomu Sénégal taxawal fa Sénégal mën fa nekk ci ay conditions yu baax yoo xamante ni dañuy yaakaar ci ñoom ci wàllu jàng ci wàllu xam-xam ci wàllu réussite dinañ ko am ndax bu nu ñëwee fii mën a gën a taxawal seen réew. liggéey pour sen réew pour Afrique. ñi nga xamanteni ñoo dem fofu ci promotion bi 19e euh, promotion fukkeelu promotion ak ñent ak juroom une ñom fuk lañu ak ñett ñoo wara dem une ci lim nga euh, mais lañu ak ñoo